jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi dégloo rajo réew mi FM 97.5 euh, seen émission pencum réew mi euh, moom moo dellu si waat tey ci samdi ji juróom-ñaari fan ci weeru novembre ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck du Diaw Diallo moo nekk ci wàllu technique bi mbokk yi nag tey dellu nañu am mbégte daal di invité dalal Seydina Issa Laye Samb. moom moo jiitee ndaw yi nga xam ne ñoo bokk ci euh, coalition taxawu Sénégal euh, ci département bu euh, Dakar Seydina Issa Laye Samb ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Abdou Khadre di nuyu mbooleem auditeur réew mi FM di leen ziar di leen sant bu baax ci teewlu bi. yow yaa jiite ndaw ñi nga xam ne ñoo bokk ci taxawu Sénégal ci département bu Dakar. nga ànd ak xalifa Ababacar Sall mi fi nekkoon maire bu Dakar ay jamono xalifa euh, Sall euh, gisoon nañ ne bi mu génnee ci kaso bi toogoon na lu yàgg yàgg euh, noppi fan yi gis nañ ne génnaat na di amal li nga xam ne mooy ay activité politique am ndax mën nga ñu expliquer noppi gu yàgg googu. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu suñu président xalifa Babacar Sall ak mboolem kilifa ak naataango ak ndaw yu ñu àndal. xalifa Sall na képp ku ko xam xam ne politique am politique bu dal la mas a nekk képp ku xam xalifa Sall xam na ni nekkul ci par parparloo ak fërti fërti Khalifa Sall génn na kaso ci mois du octobre bi ñu weesu 2019 euh, mu noppalu parce que ku nekk kaso ñetti at nguur ak doole bi mu àndal euh, parce que dañuy fàttali rek ne yonente yi sax nguur rek moo leen mënoon sonal donc ala rawasi nag mbindeefu yàlla boo xam ne vraiment da nga am bëgg-bëgg ci sa réew ñu jël lépp loo xamante ne moom la état am di police di gendarmerie di justice dóor ko sa kaw loolu képp ku mu dal jàpp naa ne boo génnee tekk war na la nga taxawaat saytu sa bopp defar defarwaat waxtaan ak say mbokk ak say nit pour war a mën a jug jug bu baax jug bi nag li ko tardeel surtout ñu yaakaar nag noppi la mooy mbas mi fi xewoon muy Covid 19 di ñaan yàlla teggil ñu ko ci réew mi. moo waral ba Khalifa sàll jamono jooju jëm mu ne tekk parce que mag la it te feebar bi dafa dafa mayul mag ñi benn sutura donc loolu aussi boo amee sax ñun ñooy njëkk taxaw ne ko président toogal ba mbir mi neex nga soog war a mën a génn donc gis ngeen ne bi mbas mi wàññeekoo mu ngi commencé génn di saafonte ak nit ñi te may fàttali rek ne balaa mbas mi sax tàmbali woon na wër këru diine yi vraiment sant leen gërëm leen parce que këru diine boo dem laal nga benn sénégalais parce que ku nekk am na foo jokku donc dem na ci kilifa diine yi vraiment sant leen parce que ñoom kenn ku ci nekk jëloon nga mbir mi def ko sa mbiru bopp taxawoon nga ci ba vraiment yàlla defaloon ñu ci sutura ak ndam daal macha allah. Euh, Seydina Issa Laye euh, Samb peut-être xam naa ne wax nga see yoon yoon mais dañu bëgg ñu revenir si tuuti. Mm-hmm. Khalifa Sall bi mu nekkee ci kaso bi est-ce que amoon na réellement ay taxaw ci wàllum euh, ci wàllum politique ndax gis nañ ne bi mu nekkee ci kaso bi bëri na ñoo xamante ni tey wan nañu ko ginnaaw lan ngay expliquer foofu. waaw ñi ko wan ginnaaw moom Khalifa Sall junjoon na ko balaa ñu koy làq jant bi. ne woon na ni yoon bi dina yàgg dina metti te ku amul muñ ak pas-pas di nga dem te loolu du am la am na ñu dem mais ku nekk rek euh, taxawee na place am ku ne la nga la nga yelloo ci taxawaay def nga ko te xalifa Sall am na ay ndabam yu ñu tëj kaso vraiment ndax xeex bi jàpp naa ne taxawaay bi ñu taxawul Khalifa Sall mosuñu jàpp nit ci réew mi ñu taxaw ko taxawaay bi mel noonu parce que jour bi ñu ko tëjee ba bés bu muy génn nit ñi taxaw nañu vraiment dooleel ko kattanal ko ci press bi ci média yi ci tali bi ak fépp foo xamante ne vraiment nit am noon na fa xalaat ak yaakaar pour war ko mën a dimbali defal nañ ko waaw ñi ko bàyyi moom comme li ma wax rek àddina moom ngëm-ngëm la ak pas-pas dama jàpp ne seen pas-pas ci li nga xamante ne moom lañ doon xeex moo leen dese woon ñor wa ilaa it dañu amoon yaakaar ne xalifa Sall ci lancé bu mu nekkoon dina dem ba falu ñoom it ñu mën si seddu parce que tey politique bi li ci metti ci jamono ji ci réew mi mooy nit yu ci bari amatuñ ci ngëm-ngëm luñ ci cëru seen wàllu bopp ak seen pas-pasu bopp rek moo leen ci ñor mais du intérêt askan wi. jërëjëf euh, Seydina Issa Laye euh, Samb Khalifa Sall gis nañ ne euh, commencé waan na def ay activité am liir naa ci presse bi ñu ne nee na ku mën a wax na wax ku mën a bind na bind mel ni dafa am benn détermination bu mu bu mu àndal waajtaay boobu ak seen activité politique yi lan nga ci mën a wax. waaw Khalifa Sall homme politique la maanaam kuy wéy di dox ci politique la depuis lu ëpp ñeent fukki at. te kooku li mu xam mooy dem waxtaan ak askan wi bokk ak ñoom projet de société yu mu am maanaam xam-xam euh, xalaat ak xam-xam yu mu am pour suqali réew mi donc euh, ndiggim ci loolu lañ ko formate formaté wuñu ko ci deal ak combine fa mu dem jàkkaarloog askan wi waxtaan ak ñoom saafonte ak ñoom ba noppi nag delloo leen njukkal parce que nga tëdd kaso ñu jël say cër yépp muy maire de Dakar di député te terewul nit ñi ànd ak yow loolu amoo fay ci nit ñi donc li la war sa diggante ak ñoom mooy pas-pas ak yëg-yëg te je pense taxawee na ko nee na it na dit ñi génn waxtaan ak presse bi waxtaan ak média yi waaw faaw mu am parce que faaw ñu wax sénégalais fa leen jëm nan la ak naka la parce que tey réew mi dem leen ba benn jamono kenn amatul droit wax sax xalaat kenn amatul droit wax yow li nga gëm kenn amatul droit taxaw ci li nga ne. lu tax waaw parce que booba am na ko fi nekk ku ñuy wax président Macky Sall jàpp moo gën nit ñi jàpp moo fi ëpp doole jàpp ne moom rek moo war a baaxle. te loolu du jëfi nit nit moom da ngay yaatal am xool bu yaatu ndax nguur yàlla moo koy joxe te moom lii muy doxal ñun jaaxaluñu déedéet parce que boo jàngee taarixi euh, adduna bi boo jàngee histoire di nga gis ne wax dëgg yàlla am na ñu ko ëppoon doole foofu ëpp ko sañ-sañ ëpp ko fit te terewul de bés dafa xëy ci diir bu néew suñu borom nërmel leen. Mm. moo tax li muy def nii ñun jaaxaluñu mais dañ xam ne borom bi la sopp mu ne fi ba tey te ëllëg it mën na bañ a jeexal mandaam ndax borom bi moom ay mbiram aajow ko ci ay mandat bu nit teg déedéet borom bi mooy dogal kañ la fiy jóge bi fooree jóge it mu jóge fi mais terewul ñun suñu taxawaay ci politique dañ koy defanteeg moom ba mu saf wan ko ne ko ànduñu ak yow te ni ngay doxale du noonu. waaw mais euh, gis nañ ne tey yéen euh, taxawu Sénégal il faut que ngeen am benn rapport de force bu ngeen def ak président ak Sall te ñu bari tey dañu gis ne yéen euh, seen doole ci wàllu politique dafa dafa wàcc bu baax a baax. waaw xam nga opposition lu metti la maanaam li tubaab bi wax traversée du désert <coughs> dañu nekk ci ay jafe-jafe nekk ci tolof tolof te réewu Sénégal mën nañ la accompagner certes mais boo nekkee ci position doole ci lay gën a yomb. boo nekkee ci position de non pouvoir maanaam opposition euh, dina metti muñ la laaj taxawaay la laaj. te loolu wax dëgg yàlla xeex la boo xam ne ñun ñu ngi koy def te jàpp nañ ne ndam mën na ciy juddu parce que yàlla moom ñëpp la fi nekkal. waaw ah, te. waaw mais est-ce na def rapport de force ak Macky Sall. mën na ko te ñu ngi koy liggéey parce que rapport de force li koy indi mooy askan wi ànd ak yow te ñun li ñu ñor jamono ji mooy askan wi xam ne seen réew teguwul si ak njub teguwul ci ay charte ak ay valeur parce que tey ku xam réewu Sénégal xam kilifa yi fi yàlla saxal bàyyi leen fi xam ne yar nañ askan wi ci dëgg ak njub mais tey nattu nag du wees ci réew ki fi ne nattu la ci réew mi. lu tax nit bu buñ la jiitalee loo wax da koy sàmmante ak sa kàddu président Macky Sall ne woon na ne du mas tabb ku bokk ak moom ci deret te gis nañ ko fi gisaat ko fi président Macky Sall waatoon na ne dina taxaw défendre intérêt réewu Sénégal bu ñu gisee scandale yi fi xew yëpp di affaire ArcelorMittal gis affaire Petrotim maanaam pétrole réew mi ni ñu ko yore Thierno Alassane Sall sax bind na bataaxal bind na euh, ab téere taalif ci lu bari wane ne loolu yépp eh, niñ ko yoree ak njub lalu ko donc tey mën nañu wax ne wor dox na diggante askanu Sénégal ak président Macky Sall te lépp président Macky Sall ak nguuram ak coalition bi porté benn bokk yaakaar ñooy ay complice am mais est-ce que bu doon dafa waroo askanam danañu ko falaat 2019 ak 58 pour cent. waaw xam nga loolu warul bett kenn parce que ku taxaw élection amagul nga ne ñëpp man dinaa gagné élection yi di ñëw ci 58 pour cent mbir mi ñëw ngeen gagné 58 pour cent am na ak njubadi ko ko lal lenn laay laaj askanu Sénégal lu tax président Macky Sall nanguwul woon wa jox ndawi réew mi maanaam ñi tollu si fukki at ak juróom-ñett ba fanweeri at seen carte d'identité tey rapport yi génn yépp jàpp nañ ne lu ci ëpp ci lu toll ci ñeent euh, plus de 40 pour cent ci réew mi ci ndaw ñi jotuñu seen carte d'identité donc tey loolu ci li nga xamante ne tax na mbir mi soxe ci la bokk. donc te boo yoree nguur aussi am nga sañ-sañu identifier ñu ànd ak yow topp leen jàppale leen orienté leen ba ñu mën la voter mais tey képp ku àndaloon ak président Macky Sall soit sa carte électeur dañ ci def noo vote maanaam mënoo wote wa ilaa it euh, jotoo sa carte donc loolu ak njubadi gëla ñoom gu ñu lal te boo demee wàllu ñoom réew yi euh, kaw yi lu ci jëm Matam jëm Mburo Sogi ak Podor yéen gis ngeen résultat yi foofu ne jéggi na sax dayo li nga xamante ne mooy ñi voté donc tey njubadi gi lalu ci ci ci ci ci élection yi ñëpp ko xam te li ko firndeel mooy dialogue national bi ñu dem ñëpp ne war nañu saytuwaat processus électoral bi. war nañu saytuwaat li nga xamante ne mooy. carte est-ce que est dialogue national boobu doon avant les élections de 2009 lañ ko waroon a amal waxtaan boobu. waaw xam nga. xam nga dem ba gagné nañ ñëw waxtaan loolu. waaw boobu dafa bëggoon jekkal boppam ba noppi nag yokk dooleem parce que président Macky Sall lépp lu muy def du pour njariñu réew mi pour lu ko dooleel moom ak lu suuxat nguuram la. donc tey dafa bàyyi ba noppi ba gagné bëgg nag am ay projet yu mu tegaat ci kanam moo tax mu ne kaay leen ñu waxtaan mais waxtaan woowu ak njub lalu ko woon sincérité lalu ko woon mais ñun li ñu si ñoroon mooy. nañu fexe ba déggoo ci ay kàddu auditer processus électoral bi parce que processus électoral bi bu leerul. pour nga dem élection ak ndam day jafe. parce que tey gis nañu élection yi weesu yow par exemple bi ma dëkk mu dund ko ñu campagne campagne bu mucc ayib mais bi ñu demee ba ci saytu résultat yi gis nañ ne ordre de mission yi bari na ci tey. commune ba euh, donc loolu vraiment lu ñuy déplorer la jamono juñ ci tolloo waxoon nañ ko mais wax dëgg yàlla nguur gi moom nguur ak njubadi la nguur ak wuruj la. moo tax wax dëgg yàlla ci seen i pexe ay pexe ak ay lijjanti la ñuy jëfandikoo ci réew mi mais askan wi àndatuñu ak ñoom. Euh, ñu wax ci euh, taxaw Sénégal fan yi gis nañ ne euh, waa LD Debout ñëw nañu ànd ànd ak yéen lan ngeen di waajal élection locale yi ngeen di waajal wala rek da ngeen di def seen activité politique. waaw xam nga LD Debout dañu bo ak bokk ak ñoom idéologie maanaam mooy pas-pas waa gauche te jàpp naa ne gauche su Sénégal parti yi nga xam te ne ñoo faroo nekk ay socialiste Euh, war nañu war a mën a retrouver waat seen biir euh, LD Debout 2009 ba léegi ñu ngi ànd ak Khalifa Sall vraiment ku ci mel ni Cheikh Gueye di ci am taxawaay bu wér vraiment ah ñu bari ñu laaxu seen ginnaaw ñoo xam ne vraiment ñu ngi liggéey liggéeyu suuf fesaluñ ko parce que loolu man am na lu ma ci dundu ak ñoom mais war la lu war la parce que koo àndal fukki at ak benn bu élection jubaatee it baax na seen ànd ngeen saytu ko nattaat ko it xam fa ngeen bëgg a taxaw ak fa ngeen jëm loolu am na ci solo moo tax loolu naturellement la am suñu diggante ak ñoom. léegi tournée yi commencé ngeen ko wala commencé gu leen ko. waaw ànd nag daanaka jamono yi ñu toll euh, invitation la ñuy répondre parce que samedi bi ñu weesu euh, dem nañu Parcelles Assainies unité 8. waa mouvement réaction invité woon le camarade Khalifa Ababacar Sall ah le camarade Barthélémy Diaz te loolu ci liy gën a dëgëral suñu taxawaay ci ci ci ndakaaru ci la bokk tey it euh, El Hadj Ahmed Aïdara moo invité président Khalifa Sall fële ci Sam Notaire ci Géejawaay loolu day wane ne tooguñu ñu ngi dox pour janoog askan wi ñu ngi dox di def ay alliance pour gën a mën a dëgëral taxawu Sénégal ci réew mi. Euh, est-ce que tey euh, Khalifa Sall bu élection locale ñëwoon tey mën na ci bokk. Khalifa Sall liñ ko yéene ëpp na local xalifa Sall ñëw na mairie Ndakaaru liggéey fi liggéey boo xamante ne tey tiitaloon na état donc tey te wax na ko sax ci sortie yi mu def ak bi muy daje ak euh, ay ñooñam ne élection yi di ñëw élection yi ndaw ñi la donc tey signal fort la parce que collectivité territoriale yi ci réew mi ak àdduna bi boo ko saytoo tey ndaw ñi ñoo taxaw pour war ko mën a yor war ko mën a jiite lu ci mel ni communes yi donc euh, Khalifa Sall tey ñun li ko yéene mooy gën ngaa président de la république du Sénégal donc élection yi ñun daf ñuy accompagner incha allah jàppale ñu kattanal ñu dooleel ñu ba taxawu Sénégal ay ndawam war a mën a nag ngañ ci ay communes yu bari. Euh, mais est-ce que Sall ci wàllum yoon bu élection ñëwoon dina mën a présenter wu yow ci li nga jàpp. waaw xam nga loolu euh, bëri na ñu ci wax bëri na ñu ci àddu am na ay ñu seen xam-xam màcc ci wàllu yoon ñu ne. bu ginnaaw juróomi at yi ñu ko tëjoon weesu Khalifa Sall mën na nekk candidat mais dañuy fàttali rek ne réewu Sénégal du réew bu am justice je pense maa ngi jot benn bataaxalu Serigne Cheikh ci vidéo chaîne Cheikh Ahmed Tidiane si di jaalee mbokk suma mbokku Tidiane yépp ci euh, dellug suñu borom soxnaam si nee woon na réew mu amul justice naka lañ fay dëkkee te loolu bu mu koy saytu ak léegi daanaka mbir yi dafa gën a yées tey Sénégal xam nañ ne. tax nga ne amul justice. waaw parce que ñëpp gis nañu ne at yi ci weesu justice bi dañ koy utiliser pour nërmeel ay doomu aadama Karim jaar na ci. Khalifa Ababacar Sall yëg na ko ba mu saf ay nit yu mu àndal yëg nañ ko ba mu saf maanaam soo da ànd ak nguur gi fi ne nga ne muut noppi wa illaa àndoo ak nguur gi yoon dal sa kaw te loolu wax dëgg yàlla lu ñuy ñaawlu la moo tax tey question wu euh, candidature Khalifa Sall bu doon réew mu am yoon lañ nekkoon loolu leer na ci boppu nit ñi. mais dafa neex président Macky Sall jël lu ñu mel ni épée de Damoclès teg ko ci ndoddam bu xalifa Sall pour di ko mën chanteloo mais je pense que ni juum na ndax Khalifa Sall du ko ñuy feccaloo du ko ñuy wayloo ndax fecc ak woy taxu ko jug mais bëgg-bëgg askan bi moo ko fi bàyyi. mais est-ce que amul benn euh, lu mu découragé ci taxawaayam ci wàllu politique Khalifa Sall. Khalifa bu découragé woon day génn day génn kaso génn réew mi mais dafa génn kaso saxal taxawaayam ci réew mi. saxal taxawaayam ci seen politique te bu amuloon taxawaay ci seen politique président Macky Sall du ko woolu ci euh, Covid bi mbas mi bi mu amee laaj ko xalaatam donc loolu mooy wane ne Khalifa Sall ba tey dayo bi mu amoon ci réew mi am na ko ba tey dayo bi mu amoon ci ci bitim réew it ba tey am na ko mais ñun li ñu jàpp mooy candidature am moom 2024 incha allahu bi borom bi dina ko ci dimbali ba mu nekk. Euh, wax nga ci Covid 19 bi ak euh, bi ko président Macky Sall recevoir Euh, ñu baree bare bari euh, munuñu woon a comprendre wala munuñu woon a expliquer Khalifa Sall lan moo tax muy wuy ji euh, muy wuy ji président Macky Sall ak doxalin wi nga xamante ni Macky Sall doxalee na ko ak moom wala ñenn ñi jàpp ne Macky Sall moo doxalee noonu ak moom ñenn ñu jàpp sax ne dafa génnoon sax cadre politique dem bi Khalifa Sall demoon est-ce que amul lu mu si réccu réccu ci dara nag président Khalifa Ababacar Sall politiquewul xol xel lay politiquer te xel lu mu nangu mooy bu ñu wootee pour sa réew pour pencoo lu war a mën a jëmale réew mi kanam parce que mbas mi ndërmel na réew yu bari buñ la woowee sa wareef mooy dem uyu ji te loolu day wane ne Khalifa Sall intérêt réew mi moo ko ñor mais du intérêt boppam bu doon intérêt boppam mën nag ak nitu boppam li ko président Macky Sall def nit musu ko def ci kaw suuf donc wane na ne am na taxawaayu homme d'état te loolu lañ soxla tey ci réew mi te vraiment macha allah mate na ko wane na fam ak pas-pasam bu mu am ci réew mi. d'accord léegi euh, euh, mbokk yéen a ngi déglu rajo Réew mi fam ñu invité euh, Seydina Issa Laye Samb yi xam nga sànq yow yaa wax ne Macky sàll bu ko réewam soxlaa dafa war a dem. Khalifa Sall Khalifa bi ko président Macky Sall di woo muy fekki boobu mbas mi dafa commencé Sénégal. si sa biir wax yow yaa ne mbas mi nërmeel na réew yu baree bari ci àdduna bi. suñu taux de croissance bi ñoo ngi wax ne mëtul sax un pour cent. est que tey bu président Macky Sall woowoon xalifa Sall ngir ñu liggéey réew mi ngir intérêt réew mi jàpp ngeen ne Khalifa Ababacar Sall dina dem wuy ji. waa Khalifa Sall nag euh, opposition la nekk te nit moom mënoo fecc ñaari sabar benn sabar dong nga mën a fecc te sa Khalifa Sall sabaru opposition lay fecc président Macky Sall bu sabaram neexoon Khalifa Sall du dugg kaso. président Macky Sall bu jubaloon ci doxalinu réew mi Khalifa Sall dina dem. ànd euh, cohérent na maanaam. Euh, da nga wax ne Macky dafa woo xalifa Sall ci mbas mi. ngir intérêt réew mi. Mhm. tey bu ko woowee si beneen intérêt réew mi. Mhm. ndax Sénégal dafa am jafe-jafe. ngir mu wooñ Khalifa Sall ngir ñu ànd liggéey. Mhm. loolu est-ce que Khalifa warul dem. Khalifa Sall amul pour dem fa ndax réew bu pouvoir amee faaw opposition am. noonu la démocratie di doxee te Khalifa Sall taxawaay bi mu taxawal day gën a suuxat démocratie ndax tey président Macky Sall sax dafa war a bëgg ci am opposition bu mel ni Khalifa Sall parce que tey Khalifa Sall bu taxawee ci wàllu politique nekk ci opposition bi critique yu muy def war na mën a nekk facteur d'orientation ci président Macky Sall mais tey njiitu réew ñi la jege doo ko gis ñi nga jàkkaarloor ngay war a mën a gis war a mën a dégg seen kàddu te tey Khalifa Sall ci wàllu askan wi nag la dem ànde parce que bëgg sa réew it cohérence bëgg na nga ànd ak askanu ci seen i mitit ak seeni i jafe-jafe donc tey xalifa Sall woo nañ ko ni ñu oowee doomi réew mépp woo kilifa diine woo kilifa aaday woo kilifa cosaan yi donc loolu buñ ko oowoon uy jiwul day mel ni moom lu muy wooti dugg ci moom mais donc tey nag uy ji président warul mën a tax tey nga nga nga nga nga ne da ngay da ngay bàyyi lépp loo jàpp. waaw mais mais mais Seydina tey. waaw Khalifa Sall ak xarañteefam. Hmm. bu ko président Macky Sall waxoon na ko euh, institution sangam wala ministère sangam. Hmm. yow laa jàpp ne yow yaa ko mën a suqali. Hmm. est-ce que warul mën a dem. déedéet parce que président Macky Sall mooy njiitu réew mi te ginnaaw Khalifa Sall. réew mi bëri na ay cadre bëri na ay borom xam-xam yu nekk ci biir réew mi. bu ci wóoloo Khalifa. bu ci wóoloo Khalifa Sall mais bu ko président Khalifa Sall wóoluwul. loolu it mu ngi ci. parce que président Macky Sall bu doon sàmmantoon ak kàddoom ak Khalifa Sall je pense que fii duñu fi yegg mais ci li ma jàpp président Macky Sall musul sàmm kàddoom diggante ak Khalifa Sall donc tey bu ñu la oowee tàllal la loxo nga ne yow am na bëgg-bëgg boo am wuuteeg sa bos ñu nërmeel la toroxal la tëj la kaso boo génnaatee bu la nit ki liñ naan ku buñ rey samaan boo gisee lu ñuul daw mais nag Khalifa Sall dëgg yàlla ndobin rey na maamam moo tax bi mu gisee lu ñuul li ci Macky Sall it daw na ko. mais terewul. Uh-huh. bu réew mi soxlawee. ci wàllu xalaat ak uh-huh. xam-xam parce que mën nga xelal nit ki te doo ànd ak moom. Uh-huh. mën nga liggéey ak nit te doo maanaam fekk ji ko moom ci li mu ne. loolu nag ci wàllu xel am na te Khalifa Sall def na ko te comme li ma la wax rek président de la république mooy njiitu réew mi ku mu woo ci réew mi war ko wuy ji. te président Khalifa Sall ci dynamique ci taxawaay boobu la newoon. ba vraiment fekk ji président Macky Sall ci wooteeg mbas mi ba lim ci xam wax na ko ko. mais mais mais. Euh, ah def may daanele it président usman Sonko njiitu Pastef uyu ji na président Macky Sall. mais tey ñëpp xam nañ ne Ousmane du ji Macky Sall. d'accord mais euh, waaw mais Seydina Issa euh, Khalifa Sall. ci information yi ñuy jot. di ko gis ci presse bi. mooy président Macky Sall ma ngi négocier ak moom avant sax muy teg gouvernement bu bees bi ndax yow jàpp nga ne Khalifa Sall ma ngi négocier ak Macky Sall ngir dugg ci gouvernement bi. président Khalifa Sall négocier ak président Macky parce que ku ñu teg chantage ne la kaay ànd ak ñun wala ñu tëj la kaso kaay ànd ak ñun wala ñu nërmee la nga bañ loolu yëpp xanaa nag li nga bañ démb boo goree doo ko nangu tey te président Khalifa Sall il est toujours constant maanaam toppanaw yoon bi mu tracé 2009 ba tey mosu ci soppeeku dara donc tey. Euh, gisuma njariñ sax muy ànd ak président Macky Sall. mën na ko xelal parce que président Macky Sall ñëpp gis nañu ni mu yore réew mi maa tey def lu ma neex dóor doom làq doom waaw doomi jàmbur nga nërmeel doomi jàmbur nga duma sa doom bu juba dee nga laax ne sa doom ma fi gën parce que tey boo gisee bànqaas mi fi teg yëpp di OFNAC di yi mais ñan ñoo fa dem ñu àndul ak moom mais loolu kon ana justice. nooy gisee nit ku nekk ci ak nëngate nga ne yaa ngi koy dem di ko dooleel mais loolu sànq sa bopp la ak sànq sa réew. <laughs> Euh, gis nañ ni euh, Khalifa Sall dafa bokkoon ci coalition Idy 2019. Mm-hmm. te gis nañ sa Seck dem ànd ji ak Macky Sall ndax ànd Idy ak Macky euh, yow Seydina Issa Laye Samb en tant que jeune bu jiite ndaw ñi bokk ci taxawu Sénégal ci département bu Dakar ndax ànd boobu lu la bett la. waaw xam nga politique moom. dañu naan lu bett mën la mais lii dara bettuñu si boo leen fàttalikoo camarade Barthélemy Diaz euh, doon euh, diingat ñi mu doon oowee lii dealers de l' opposition maanaam ñi nga xamante ne dañ nekk ci opposition sol bu bam opposant waaye guddi ñu sañse yërey nguur donc loolu amoon nañ ci ay ferñeent ci weer yu ñu weesu bu baax a baax a baax a baax te wax dëgg yàlla politique moo ni mel te ku xam euh, idri sa Seck xam ne sàmmante ak kàddoom ak sàmmante ak taxawaayam mosul nekk pas-pasam waaw waaw moom li nekkoon pas-pasam rek mooy lu ko ñor moom boppam parce que tey boo gisee fi mu jaar ak Ablaye Wade mi ko tabax rek war na wane ne wax dëgg yàlla euh, gaa ñun def nañ suñu wareef maanaam mooy jàppale ko ci élection présidentielle yi mais nag askanu Sénégal mooy àtte parce que nit moom li la war def ko buñ la waree nit ñi xam ne la la waroon def nga ko te nga bàyyi nag ak nit ñi ñu àttal seen bopp ah, mais mais mais euh, Issa Euh, Seydina Isa li nga wax nii man mënuma ko comprendre. Mm-hmm. ndax yow danga wax ne Idi dañ ko xam ci nit boo xamante ni nit bu bu sàmmonte ak kàddoom la. Mm-hmm. mu mel ni mbir la moo xamante ni du lu bees ci yow loo yàgg nga si Idi la. Mm-hmm. kon lan moo tax yéen waa Khalifa sàll ngeen bëggoon na imposer Sénégalais yi. Idrissa Seck ak responsabilité bi nekk ci réew. xam nga booba. nekk nañu ci coalition Manko taxawu Sénégal dem élection législative président Idriss Seck seex ak ñun jàmm seex ak ñun kóllëre. mais ko ëpp moo moo ko ëpp fuuf. Mhm. ñu dem ba ci biir ñu xool mbir mi ni mu demee ñu recalé ay candidats te candidats yi fi nekkoon ci moom lañ gënoon jublu ci ay kàddu jubóog kàddu te it ci moom lañu gënoon gis ci coalition bu mu àndaloon ne war na ci président Khalifa Sall war na ci man bokk. donc tey wax dëgg yàlla lu ñuy assumé la amuñ ci benn regret parce que ci wàllu politique ci contexte ba mu jotee loolu moo doon suñu cër loolu la ñu def. Mm-hmm. waaw mais te li ci am solo mooy président Idriss Seck à l'époque bi ñu nekkee ci manko wax dëgg yàlla xaroon na tànk tubéyam ci taxu Khalifa Sall. donc li ñu ñi dawul woon comprendre à l'époque mooy xalifa saal Idrissa Seck ci li mu ci askan wi taxawu na ko dooleel na ko kàttanal na ko ba noppi nekk Khalifa Sall wëlbati ko ndax dëgg yàlla ci jamono jooju ni ci Idrissa Seck sonne woon sax. wax dëgg yàlla keneen sonne ko ci woon ci leader politique yi newoon ci ci opposition bi ku ci mel ni président Malick Gakou aussi à l'époque taxawoon na ci taxawaay yu am solo donc tey bu ñu defoon leneen ñun waa taxaw Sénégal askan wi dinañ ñu ne ñun gërëm ñu ñu jam-jam yu métti yoo xam ne doo xam noo koy layalee moo tax nit moom mhm. la la war def ko la nga seex sa diggante nit ñi def ko nag nit ku nekk comme ni ma wax rek ñun tëddeew ñu place ab kenn taxawee ñu taxawaay kenn li ñu war la ñuy def lu ñu si fekk nag ñu assumer ko euh, yéen coalition euh, euh, taxaw Sénégal mm-hmm. li Idrissa Seck def euh, en tant que jiite woon Idi 2019 ndax lu ngeen ne rafetlu la. waaw xam nga loolu moom dañuy tàmbalee si njiit li muy président Khalifa Sall ñun xuloo boobu ñun boolewuñu ko boolewuñu ko si parce que président Khalifa ñëpp gis nañ taxawaayam yëyul yàbbiwul ci dara mais ñun ndaw ñi ndaw yi réew mi nga xamante ne dañu nam réew mi tegu ci ak njub tegu ci loxo yu wóor tegu ci loxo yu kilifa yuy sàmmanteeg seen kàddu respecté seen bopp. ñun ñu ci mbégte te ñaawlu nañ ko lool parce que gor ca wax ja parce que président Idriss Seck taxaw na wax ni institution yi fi nekk maanaam banqaas yi nekk ci réew mi te ñu réew mi njariñ war nañ ko mën a dindi mais tey si banqaas yooyu lañ ko jox tey kon ana waxi démbaam waaw mais tamit euh, euh, ban analyse ngay def ci Idriss Seck keroog bi muy wax dafa wax ne taux de croissance bi euh, matul 1 matul un pour cent ci biir même propos yooyu même conférence de presse même bi fi mu toog wax na ne bi mu commencé di waxtaan ak Macky Sall ay weer yu baree bare la ci ginnaaw mu mel ni ba waxtaan yu commencé taux de croissance bi nekk toon pour cent ma ngi woon ci 7 pour cent kon mu nekk benn incohérence boo xamante ni euh, am na ci euh, ci Idrissa Seck ndax yow jàpp nga ne ñiy wax dil yow noonu nga koy woowee. moom de moo feeñal boppam parce que boo waxee ne ba nga tàmbalee wax ak moom ma ëpp na fukki weer ak juróom mbas mi mois de mars la mm-hmm. donc tey bu nee mbas mee ko dugal ci lii. ah wax na lu ko neex mbas mi nag wax dëgg yàlla amul tur ah, am na tur am na sant Covid la tudd sant 19 waaye amul gémmiñ bu mu tontoo moo tax bu doon loolu kese la wax dëgg yàlla jàpp nañ ne dina layal boppam ndax lu xew rek te teg nañ ko ci daram wax nañ ne moom moo tax mais président di Seck ñëpp xam nañu ne buy élection présidentielle yi noppee ci la tàmbali ñu teg ay jéego digganteem nga président Macky Sall ba mu jur li mu jur tey mais nag wax na ba wër boppam xam nga mën a wax moom xam li ngay wax moo ko gën. ndax wax na tey ba wër boppam wax na ba feeñal boppam ba nit ñi xam ne li mu doon wax yépp dara amu ci. waxoon na tamit ne euh, soxlawul décret loolu Idrissa Seck moom mu génnaat si euh, loolu tamit euh, lan la mën a yàq tey ci sunu ndaw réew rawatina yéen ñi nga xam ne ay ndaw ngeen di politique. li ci métti mooy dina am ñu yaakaar ne loolu mooy yoon bi te du foofu waaye nag dañuy woo ndaw ñépp suñu mën a ràññee lu jub ak lu jubati lu weex ak lu ñuul pour war a mën a teg réew si yoonu ñu parce que réew moom. ala kuli àll faw ñu liggéey ko mais faw mu am nag benn génération bu sacrifié wu wuute ak ñenn ñu fi ne pour war a mën a teg réew mi sig dëgg sig njub ak ci leer parce que tey euh, boo saytoo liñ ciy wax yépp lépp intérêt boppam moo ko sooxe moom président Idriss Seck amaana ba amatul yaakaar ci politique te amaana ba namm na nguur parce que nitu pouvoir la dem na ci président Macky Sall te lim ko yàq yépp nit ñi dégg nañ ko liñ ko li mu li mu li mu li mu li <laughs> mu tooñee président Macky Sall yëpp. tey fonkul kàddoom. Hmm? doon na fonkul kàddoom. fonkul kàddoom daal ci ci ci gàttal daal. non non Idi da doon wax ne Macky du du nit ku fonk ku kàddoom. waaw mel ni nag moom moo ma yem nag. ñoo yem ñoo yem waaw mais est-ce que jàpp nga ne euh, Idi bi muy wax ak euh, président Macky Sall euh, en tant que jiitle woon coalition Idi 2019 ndax jàpp nga ne waxtaan na si ak Khalifa Sall. loolu moom amuñu ci lu ñu wóor wax dëgg yàlla buñ nee waxtaan nañ ci Khalifa Sall it. wax nañ lu ñu wóorul te wax dëgg yàlla bu ñuy wax it askan wi di déglu bëgg nañu wax lu ñu leer mais daal li leer ba leer mooy président Khalifa Sall àndul ci coalition Idy euh, parti réew mi li mu dem ci gouvernement yi parce que bu ci àndoon di ngeen ko gis ci ci wetam. mais mais est que jàpp nga ne président Macky Sall consulté na xalifa Sall ngir dugaloon ko ci gouvernement. waa loolu it bu amee ñun wuuruñu parce que nit moom it la ma wax sànq rek dama ciy delluwaat président Khalifa Sall bu doon tey moo koy yëkkati politique gu boppam intérêt boppam dem na ci président Macky bu yàgg parce que kaso moom neexalul kenn. te tëj nañ ko kaso. metti na woon na lool ci moom lu ne nag proposé nañ ko te mu bañ ko loo bañ balaa ngay dugg loo bañ bi nga nekk ci biir du du boo génnee nga koy nangu. waaw ah, donc loolu moom di dalal xelu sénégalais rek ne Khalifa Sall mu ngi ci opposition bi te dara taxul mu jóge ci lu dul jël nguuru Sénégal incha allah. Euh, Idrissa Seck mi nga xam ne ñoo ngi wax ne président Macky Sall daf koy préparer euh, pour jox ko réew mi ñenn ñi ne Macky Sall dafay préparer ngir nekkaat ci bopp réewum Sénégal lan nga jàpp moo si xew yow lan moo si sa analyse. Macky Sall day fawee xelu sénégalais yi Macky Sall daanaka tey ci li mu wax nee na du def troisième mandat. mais ban mandat lay def premier deuxième wala kenn xamul loolu it yoon bu ñu amoon yoon bu leer am yoon bu juste jàpp nañ ne question yooyu dootul posé diw ci réew mi mais tey président Macky tegul benn tànk pour ñàkk réewu Sénégal déedéet lépp lu mu teg pour dooleel boppam la dooleel ay ñoñam donc loolu it moo tax saa su ne ñuy wax askan wi ne nañuy mën di ràññee parce que ràññee lu am solo la ci taxawaay ci politique parce que tey président Macky Sall ñëpp wan ne euh, maanaam am na nguur mais ba tey dafa xiif nguur te loolu musiba rek lay mën a jural réew mi parce que ku xiif nguur moom li dal waa Guinée moo lay dal maanaam ñëpp xam nañ ne gañe woo nga ne maa gañe te réew mi bu ñu moytuwul nag wax dëgg yàlla président bi ak ñi mu àndal ñu ngi koy fawee di fawee bànqaas yi réew mi di fawee institution yi réew mi te mënul jur jàmm ci réew. d'accord mais euh, euh, euh, Seydina Issa Laye Samb yow dama wax sànq nga ne Khalifa Sall bu ko président Macky Sall woowee yow gisoo ne dafa war a dem. ànd jeeg moom dugg ci gouvernement bi yow loolu moom mooy seen xalaat loolu moom mooy seen gis-gis est-ce que tamit du ñu nangul Idrissa Seck gis-gisam fi Sénégal toll ak jafe-jafe yi mu am mu dem ànd ji ak président Macky Sall. xam nga wax naa ko sànq nit mën nga bañ a ànd ak moom mais di ko xelal président Idrissa Seck xam na état bu bindee président Macky Sall bataaxal wax ko xalaatam ci réew bi loolu doy na mais ñëw ànd ak moom ci koo xamante ne yow nee nga dafa tële kay ku tële ah wax dëgg yàlla. yow nga am ambition ci réew jële ko fi teg toog wante yow la nga doon di nga yépp ëllëg démb moom nga taxaw tey di ko défendre xam nga nag loolu it day xaw a tey xel tuuti te président Macky Sall comme ni ma ko waxee rek réew mi du woy politique rek moo fi nekk bu dee dafa tële ci yenn banqaas yi tële ci yenn situation yi am na ay nit yu fi ne am xam-xam lool ci wàllu ay domaine économie wàllu mbay ak yépp mën na leen woo liggéey ci ak ñoom loolu yàqalu ko dara gis réew mi ñu ngi koy liggéey parce que am na fonctionnaire yu fi nekk di xëy guddi ak bëccëg ci lu neex réew mi ministres yi daanaka dañuy dañuy doxal ni ci kaw rek mais li ci biir ay sénégalais ñoo ko yor donc tey lenn la réew mi soxla mooy ak njub ci wàllu justice ak njub ci wàllu yorenu alalu réew mi ak njub. loolu gis amul amu fi. amu fi gis euh, Seydina président Macky Sall teg fii OFNAC euh, IGE nekk fii président Macky Sall def loo ministère yi ay déclaration patrimoine euh, yow nga bëgg a taxaw ne justice amul ci réew mi loolu est-ce que nit mën na ko comprendre. loolu puukare la bu président Macky Sall mais amul dara luy firndeel ne CREI yi wax dëgg yàlla mu ngi topp moom ay ñoñam parce que ñi ñu ciblé yépp tey mooy ñi nga xamante ne ànduñoon ak président Macky Sall mais tey. boo gisee biir réew biir biir nguur président Macky Sall ñun ay sénégalais la ñu woon nekkoon opposition bokk ak waa APR opposition 2009 ba 2012 mais tey di si gis ñoo xamante ne seen salaire wax dëgg yàlla li ñu am ñaari millions la toll mais ni ñuy dundee weesu na loolu fuuf mais loolu tey war na tax nag nit ñi laajte ñii alal ji ñor fa lañ ko jëlee. donc tey wax dëgg yàlla président Macky Sall ci boppam sax moo toogoon wax ay nitam ne am na dossier yoo xamante ne si suufu concam la ko def wax dëgg yàlla moo wax ba weer boppam nee naa la sànq nit dina wax ba wax lu ma warta wax te ñoom saa su nekk bu ñu waxee rek yàlla jaxas seen xel ñu weer seen bopp donc Macky Sall wax dëgg yàlla mooy njiitu réew mi mais moo taxawoon ne am na ay kayit yoo xamante ne ay luubal yu ay ñoñam def la mu ngi mu ngi ci teg toncam maanaam loolu justice du si am accès mukk ilaa yomi din waaw mais euh, lu jëm ci remaniement bii mu def nii mm-hmm. euh, est-ce que yow am nga si yaakaar ne euh, solution la wala ban jàngat nga ci def awma benn yaakaar ci lu président Macky Sall teg parce que lépp lu mu teg pour askan bi lépp lu mu teg pour luy dooleel nguuram la nërmeel ay doomu aadama loolu rek moo ci sama gis-gis ci fànn boobu. très sincèrement. benn yaakaar laa ci amoon benn yaakaar parce que jox nañu ko réew mi 2012 ba tey te tey la waalo gën a ay tey la ñàkk gi gën a sax tey la ñàkk liggéey bi gën a sax ba li ko yokk firndeel sax mooy ndaw yi jël gaal nekk sax ay étudiants amatuñu yaakaar ci seen réew nit. foo nekk yaakaar moo la fay ba. Oh, yow kon da jàpp ne espoir amatul ci ndaw ñi. espoir amatul ci ndaw ñi tey ndaw yi Sénégal buñ amoon yaakaar ci seen réew dinañ toog defar seen réew parce que nit moom ku ne fi nga yaakaar ngay liggéey mais fi ñu yaakaar mooy amaana ba dëkku taax yi ci kaw mais tey li xew ci géej gi wane na ne ah li kat amul. d'accord fan yi passé organisation internationale du travail bureau international du travail wax nañu ne. wax dëgg yàlla Sénégal taux de chômage bi bari na fi loolu loolu luy firndeel na ne réew mi teguwul ci ak yoonu suqaliku teguwul ci ak njub waaw te loolu yëpp lenn rek moo ko moo ko moo ko moo ko soxe mooy ñàkk yor bu sell bi Macky Sall yor ñu rendre compte waaw ala kul yàlla xam nga rendre compte moom si ñaari fànn la soit ci kaw suuf wala fële rek te yàlla moom ci boppam moo sante ne njiitu réew bu ne na nga yore sa askan ak na nga yore seen alal ba ca 15 ba ca gën raw di nga layoo bu dul fii di fële rek waaw. d'accord euh, mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi euh, tey ñu invité euh, Seydina Issa Laye Samb moom moo jiite ndaw ñi bokk ci taxawu Sénégal ci département bu Dakar. Uh, Seydina Issa xalifa Sall dañuy wax ne dafa xaw a nooy dafa xaw a timide ci wàllum politique am lan nga ci tontu. ah bu dee dafa nooy day ba jël mairie ndakaaru mu nekkoon un yóbbu ko ba set kon day nooy googu baax na ci réew mi bu doon it euh, nooy wax dëgg yàlla tax na ba ñu remarqué ko au niveau international ba mu liggéeyal Nations uni liggéeyal Banque mondiale kon de nooy googu baax na xam nga réew mi mhm. li ñu xam jamono ji ñu layal ko ci politique mooy wax ju ñaaw li ñu xam ci politique jamono ji mooy saagante ak yàq mais Khalifa Sall ñëpp xam nañ ne yar ak teggin lu mu la mayul wax dëgg yàlla loo ko xañ Xalifa Sall ci yar ak teggin la yore la la nekk ci réew mi si yar ak teggin la ko nit ñi bëggee donc man gisuma tey lu war a mën a tax muy soppeeku gisuma tey lu war a mën a tax Xalifa Sall yar gi mu àndal ba nit ñi wóolu ko ba kilifa diine yi am yaakaar ci moom vraiment gisuma lu waral mu war ko mën soppi te terewul yaram ak teggin boobu ci la gañe woon mairie Dakar. gañewaat ci duma ci état bi duma yu leer nañ ci 2014. d'accord mais euh, Seydina Issa Laye il faut ñu tourné sànq ci gouvernement bu yees bi. fan yi gis naa ñoom Moussa Taye ak yéen ngeen di naqarlu euh, Antoine Félix Diome mi nga xamante ni def nañ ko ministre de l'intérieur. te moom ay jamono euh, mu nekkoon agence judiciaire de l'État ci jamonoy procès xalifa Sall bi. waaw xam nga président Macky dafa may ay soldaaram ci réew mi yoo xam ne bu leen nee toog leen ñu toog bu leen nee jug leen ñu jug moom nag jàpp ñu ne ci soldaar yooyu la bokk te nit moom boo nekkee ci réew du nit moo lay wax na ngay doxale am na ay charte yu fi ne am na ay loi yu fi ne am na jurisprudence maanaam lu ñu daan doxale donc loolu lu ñuy ñaawlu la parce que day wane ne Macky Sall am na fu mu jëm am na lu mu bëgg te wax dëgg yàlla ku sedd la ci jëf donc lépp lu mu teg rek xam nañ ne am na lu ko suuxat ci ginnaaw te lii mu teg Antoine Félix Diome fii ci intérieur jurul jurul jàmm Macky Sall suuxat gën a dooleel nguuram gën a dooleel taxawaayam loolu rek moo ko ñor te ci pour lu mën a nekk la lu mën a nekk la président Macky Sall dara safu ko naka nit ñi xam. waaw mais est-ce que tamit euh, gisuñu ne président Macky Sall. peut-être nag mën nañ ko tuddee dafay jaay doole. Mm-hmm. wala dafay xeexee doole askan bi ndax moom la ñu jox euh, police ak gendarmerie mais depuis 2012 gis na ne yu baree bari bu ko tegee daf ci réussir bu ne damay def référendum day def référendum bu ne day def parrainage day def parrainage bu ne day segg day segg euh, te yéen dafay mel ni opposition bi amul benn rapport de force bu ngeen mën a imposer Macky tey bu doon def troisième mandat tamit lan ngeen ci man xam nga tey 23 juin bu muy am président Macky Sall ngi si opposition bi dañ ne dafa am xam-xam ak ci politique mais diggante 2009 ak 2012 bu mu génnee APR lan la def. bi ko Ablaye Wade convoqué la wooye commissariat centrale fan la dem ak si kan la dem dem di sa di ko sàkku dimbal donc tey ana xarañteem ak am dooleem ñun gisuñ ko bu nekkee opposition 23 juin lan moo ci doon taxawaayam gisuñu ko bi ñu ñi di xeex place de l'obélisque fan la nekkoon lan moo doon xarañam lan moo doon taxawaayam ñun de mosuñ ko gis mais bi mu amee nguur nag ba yor doole réew mi ba yor fitali réew mi ba yor euh, armée bi yor gendarmerie yor police yi la ñu soog gis doole président Macky Sall moo tax ma ne loolu ñun mënuñu saf wax dëgg yàlla parce que ak njàmbaar moom day fekk nga doon njàmbaar te yoroo dara mais sa njàmbaar da fekk ba ñëpp di la garder boo tëddee nelaw am ñu taxaw di la garder ngay soog am ak njàmbaar loolu ñun safuñu euh, lépp lu mu def mu réussir ko war na ko man def parce que du démocrate Ablaye Wade li tax 23 juin am dafa nangu waa majorité manifester nangu waa opposition manifester. nga ne du démocrate. Euh, président Macky Sall parce que jëful jëfu démocrate jëfu. nit ku ku wóolu boppam ku wóolu kàttanam ak dooleem wéer ko nag ci doole réew mi moo tax ma ne du démocrate. waaw mais euh, Antoine Diome. Euh, mm-hmm. ñenn ñi dañu jàpp ne euh, kuy ku koo xamante ni sax xaritu Macky sàll wala kuy dugal loxoom ci APR ñenn ñi jàpp ne teg gi ñu ko fi teg bokk na si tey. Uh, bu ñu demoon ba mu war a wàcc policier tey ci mbedd mi répression wala tey manifestation war a am. Mm-hmm. waa xam nga manifestation moom bu daan am muy parrainage muy quelque autres manifestations boo génnee ci mbedd mi rek minuit boucler leen dëkk bi yépp génne seen char génne seen ngànnaay yi damay fàttali rek seen naataango Pape Alé Niang nee na li réew mi jënd ci ngànnaay si ñetti at yu ñu weesu Sénégal mosu ko jënd Sénégal kan la joteel kan lay xeexal bay war a mën a ut ay ngànnaay rek rek rek rek loolu mooy wane ne kay président Macky Sall ragal opposition am doole ci réew mi moo tax mu def ko. mais yéen bu doon tey day def troisième mandat lan mooy nekk seen taxawaay. taxaw xeex comme ni ko xeexee booba mu génn waat xeex ngeen 2019 te teewul dara. Eh, xam nga nit moom mbapat tey dañ lay gañe suba ñu gañe la xeex nag bu dee da nga ne saa yu ñu la ëppee doole nga daw doo ma sam dam suñu daw musuñu dellu ginnaaw wax dëgg yàlla te tey taxawaay bi ñu si nar a am it taxawaay xeex lay doon. mais est-ce que yow am nga tax yow sa sa xel mu dal ci conseil constitutionnel tey bu ñu demoon tey ba war a nangu. candidature Macky Sall war a war ko mën a gàntal wala bu Khalifa Sall ndax kuréel googu noonu conseil constitutionnel ndax yow jàpp nga ne ñu crédible la ñoo wóolu la. benn baat bu gàtt laa ci tontu wóoluñu leen. ah bon waaw. Euh, euh, mbokk yéen a ngi déglu rajo Réew mi FM euh, Seydina Issa Laye seen taxawu Sénégal yéen ce que nekk na kuréel boo xamante ni structuré ngeen ko. taxawu Sénégal ci ci jafe-jafe. ak métit la juddoo parce que ñëpp xam nañu ne taxawu dakaar mu jur taxawu Sénégal te taxawu dakaar bi ñu président Macky Sall commencé ko xotal si lu judd askan wi yëpp màbb ànd ak ñun doole ji di jug di jolli di yokk mu gën a tiit ba nërmeel suñu njiit muy Khalifa Sall mais dama koy fàttali leen moom président Macky Sall ne yàlla rek moo am sañ-sañu nërmeel doomu aadama parce que tey yéenam ci xalifa Sall bu antuwoon tey kenn tuddutul Khalifa Sall mais tey la waalo gën a ay tey la nit ñi gën a bëgg Khalifa Sall donc lu jëm ci wàllu boobu structuration bi mënul woon gaaw mais tey ñu ngi dajale di taxañ di dolli pour gën a mën a ta euh, jox dayo taxawu Sénégal te yàggatul président Khalifa Sall dina ci àddu manaam nag du liggéey yëpp gaawtu du liggéey yëpp euh, yàkkamti déedéet liggéey yëpp toog la liggéey yëpp saytu la liggéey yëpp waxtaane la parce que lépp looy def it lu ko jëmale ci wàllu parti politique looy mën a diisoo ak nit ñi la te da ngay jàpp ne du parti plateforme la bu ay nit ak yeneen leader politique adhéré donc lépp la lu ñuy waxtaane la te ñu ngi ci tànk yi te balaa yàgg askan wi ak yéen way tas ba katu xibaar yi di ngeen ci am ay fer ferñeent yu wóor yu leer incha allah. mais est-ce que Khalifa Sall ak jafe-jafe yi mu amoon am na ay fonds pour organiser tournée bu man sëkk. xam nga man doomu fonds ci politique ci la bokk mais pour man 20 pour cent la 80 pour cent yi maanaam juróom-ñett fukk yi ci téeméer boo jël détermination la ñun exemple laa jël suñu jëmm yi. ay xale lañ amuñu xaalis amuñu alal mais am nañu pas-pas te pas-pas boobu tey may nañu taxawaay fa ñu dëkk muy yoof pas-pas boobu tey xaw nañu may taxawaay ci politique ci réew mi donc te defuñ ci alal donc alal moom wax dëgg yàlla lu ñuy teg fële la ci boor bi wane ne du l'élément déterminant maanaam du li nga xamante ne mooy tax ndam am déedéet mais pas-pas bi moo ñu ci mën a may te pas-pas boobu Khalifa Sall ñëpp xam nañ ne fees na del ak moom ñi mu àndalit fees nañ ko del ba koy maye. Euh, ñiy wax ne Khalifa Sall leader la boo xam ne euh, dakaar la amee doole amul feneen doole lan ngay tontu ci loolu. li ma leen di tontu mooy Khalifa Sall sorti bu mu mujjee def Tamba nit ñi ñoo doon génn ci tali bi. di ko arrêté pour mu ñëw wax ak ñoom mooy bàyyi balaa ñu koy tëj kaso parce que bi mu jógee Tamba daanaka ci la état bi tiit président Macky Sall teg sagom ba ci lañ ko tàmbalee convoqué ba ni ko yàlla dugale kaso mais loolu bu doon Khalifa Sall ndakaaru rek lay am kon taxawaay boobu ci réew mi fu mu génn nit ñi duñ ko topp mais demoon na fa ndar jógee ndar dem Tamba te macha allah ba mu ci weesoo moom gis nañu wax dëgg yàlla conséquences politiques yu mu jur. te damay fàttali fàttaliku ne biñ ko tëjee kaso dem nañ Mbuur def fa meeting bu rëy dem nañ it Kaolack def fa taxawaay bu am am solo meeting bu rëy ci biir Kaolack. daanaka junni junni nit ñëw nañu sol seen dàll jamono jooju fekke suñu te si turu benn nit la muy président Khalifa Ababacar Sall donc ñi naan Khalifa Sall ndakaaru la loolu wax ju yàqu la mais du lu wóor du lu wér. waaw mais est-ce que jàppoo ne politique mën naa tourner ba xalifa Sall demaat parti socialiste wala mu lëngoo ak ñoom. waaw man de ni ma gisee loolu war na mën a ne mais ci sama analyse ci politique nekkagul lu jot parce que tey waa parti socialiste dañ xar seen tànk tubéy riigu ci Macky Sall. mooy ci moom parce que am na ci ñoo xamante ne ñi yàlla malheureusement teg parti bi seen loxo jamono ji lenn rek moo leen ñor lu ñu amal seen bopp. donc waaw donc ñoo ñu tey di màcc tàngal nag nga ne ko bàyyil sa tàngal bi ñëw lekk ci sumpa gi sumpa gu gu weex gi wax dëgg yàlla loolu du lu may am yaakaar jamono ci li ma a ne nag mooy ji biir parti socialiste am na ñu safoo Khalifa Sall te gis nañ ne incha allah bu xalifa tegee ay jéego ci wàllu politique ci réew mi ñooñu dinañ jug fekk si ko. Euh, pour jot ci parti socialiste ndax tey bokk na ci parti socialiste ndono euh, Léopold Sédar Senghor la est-ce que Khalifa xeex na est-ce que xeex na pour jot ci boobu. xam nga ndono ndono ndonowoo jikko ndonowoo taxawaay ndonowoo pas-pas mu ëpp solo banqaas parce que banqaas lu luy yàqu luy luy luy luy nërmeelu la mais tey pas-pas xel mu rafet xel mu sell ak idéologie daanaka si immatériel te mooy li nit di doxe te loolu du yàqu te Khalifa Sall jàpp nañ ne sur ce plan là taxawee na taxawaayu héritier wu Senghor waaw. est-ce que parti socialiste euh, gisoo ne ma ngi yàqu bu njëkk respect bi ñu ko joxoon idéologie ba fa amoon école du parti est-ce que gisoo ne parti boobu euh, ma ngi yàqu ma ngi nërmeelu. parti boobu lu ñu war a yeesalaat la te metti na ci xool ndax ñun suñuy maam bi dara xewul dañ fi nekkoon ak partie bi def seen alal ci parti bi. def seen ni ñaan ci parti bi donc tey fi mu mujjee nii metti na trop ci xol mais nag yàqu na waaye lu yàqu nag euh, am nañ euh, am nay pexe pour yeesal ko te loolu waxtu wee jotagul rek mais bu jotee suñu parti di leen ko jotaat te di leen ko yeesal. mais yow euh, nekkoon nga secrétaire général jeunesse su parti socialiste. département Dakar est-ce que jóge gi nga jóge ci parti socialiste amul yenn regret. awma ci rëccu. parce que ñu ma daxee ci parti bi parce que man bokkoon naa maa yoroon Ndakaaru ci ndaw ñi bokk bureau politique ba pare nekk le secretaire à la vie politique au niveau national maanaam ñun ñoo doon tëral ndax taxawaay yi ak doxalin bi au niveau national ànd ceeg ñi ñu àndaloon ci jamono yooyu mais bi ñu ci génnee amaana ba nit ñi mën nañ bañ a comprendre mais wax dëgg yàlla man dama si gis suma bopp parce que biñ ñu daxee li li li màbb yoof ñëw fekk si ma ci ay nit ak ci Ndakaaru parce que daanaka ñun yamuñu rek yoof yoof mooy suñu base duñ bëgg dugg ci kiiw keneen mais ci yeneen dëkk yi nit ñu jug pour ànd ak ñun kenn xamul lu mu toll. tey bu ñu ma daaxul woon parti socialist taxawaay bi ma am comme ni ma ko waxee sax du ma ko am. waaw mais mais euh, gis nañ ne yow amoon nga benn dayo peut-être ba léegi ma ngi fi. mais ñu bari doon nañ xaal euh, doon nañ xaar législative yële passé nga bokkoon ci liste bi par rapport ak li nga daj ci parti bi ak taxawaay bi nga am Dakar. waaw xam nga booba dañu bokk ci coalition bu rëy te ay ndaw lañu. ñu ngi ñu investiroon ci liste Dakar comme suppléant donc loolu taxoon na jamono jooju ñu natt suñu bopp ci deux élection 2017 même ak suñu taxawaayu suppléant ñun ñoo jël deuxième ci fi ñu dëkk. gañe fa ñeenti centre de vote ci fukk ak ñaar dafa nekk te ci ñeenti centre de vote yooyu gañe nañu quartier Ouest Foire gañe quartier Cité Djily Mbaye Diamalaye ba noppi gañe centre de vote bi gën a rëy ci yoof donc loo muy euh, centre de vote école Diamalaye mu la ñuy wax école euh, école Yoff 2 école 2 donc tey loolu wane na ne kat ñun am nañ taxawaay ci politique bi ci yoof te booba it li ñu fi am ci ay baat Europe ëpp na juróom-ñetti junni di dem ci ndaw yoo xamante ne ñu ngi opposition amuñu amuñu doole mooy wane ne wax dëgg yàlla ci politique moom yàlla mu mu ñu ci suturaal ci jamono ñu d'accord ñu wax ci euh, yoof yow ngay milité fi nga xamante ni fi nga dëkk di yoof mm-hmm. mais nga nekk fa ak Abdoulaye Diouf Sarr mm-hmm. te tey Abdoulaye Diouf saar gis nañ ne élection législative yi lay passé sax. Uh-huh. bi Macky Macky Sall Abdoulaye Diouf Sarr moo tax presque mu gagné Dakar. Uh-huh. ndax gis nañ euh, la mu fa am ci voix. yow amuloo euh, nekkuloo euh, député. Uh-huh. jàmmaarloo koo xam ne ministre plein la. est-ce que dina yomb. yombul xam nga àddina moom muñ moo fi nekk ak xeex. te wax dëgg yàlla bu ñuy fàttali xeexu David ak Goliath <laughs> David. daanaka néewoon na doole Goliath am doole lool mais terewul David mu am ndam donc loolu ñun xibaar yooyu euh, taxawaay yooyu ci lu ñuy yokk pas-pas ci la bokk boo xoolee it réewu Sénégal kolon euh, yi fi nekkoon jéemoon nañu nërmeel suñuy kilifa ci wàllu diine te taxul mu antu te colon yooyu leen ëppoon doole fuuf mais boo wéeroo ci yàlla doxal dëgg ak njub doxal ak leer ci politique jàpp naa ne ndam moom looy war a mën a am la parce que tey Ablaye Wade 2000 bi muy gagné parti socialiste fekkee na parti bi li mu yor ci alal ak taxawaay ci réew mi kenn amu ko ab laay Ablaye Wade bi muy ñàkk nguur gi amul ku ko ëpp fit ku ko ëpp sañ-sañ ku ko ëpp alal ci réew mi. te terewul yàlla daaneel na ko. moo tax ñun ci jàngat yooyu la ñuy jàngat xam ne mbir mi ñuy lijjanti yoof war na mën a nekk moo tax taayu ñu si ñu siy gërëm waa yoof bu baax a baax a baax a baax te xam ne incha allahu rabbi balaa yàgg ndam dinañu ñu si incha allah. lan nga xalaat yoof tey boo demoon ba nekk maire bi lan nga fay def. waaw yoof moom. li ci tuuti woo tamit nekk maire yoof. déet xam nga daanaka damay fàtte saa su nekk wax bu ma neex maam Cheikh Anta Mbacke bi ko sëñ tubaa di responsabiliser di ko cheexal ci yoonu Mouride fukki at ak juróom-ñett laa amoon sëñ euh, Serigne tubaa dénk ko responsabilité. boole ko ñeen juróom-ñeent fukki taalibe ak juróom-ñeent 99 taalibe ak moom muy téeméer boo xoolee Zulkarnayni Alexandre le Grand ba muy doon buur fukki at ak juróom-benn la am ba fanweeri at ak ñaar ak ñett mooy at daanaka yu ñu xaw a tolloo jamono ji te ni tey ci nguuru àdduna ci buuru àdduna lim ci def wax dëgg yàlla néew nañu ko ci def ay at moom man gëw ma ne ndaw war na bana mañ a yor am réew yonente sax buñ ko yónni ci ndawam lañ ko yónni donc yàlla tracé na voie boobu ba pare te tey li fi ndaw ñi di liggéey ci àdduna bi wax dëgg yàlla ñëpp si teg seen. mais est-ce que nga changement ci commune nu Yoff. changement ci commune nu Yoff gisuma ko parce que bu ñu la dénkee baatu askan bu ñu la dénkee réew bu ñu la dénkee ab dëkk war nga mën a nemmeeku waa dëkk bi seeni bëgg-bëgg nga nga ci ko ciy def mais comme li ma wax rek nguur yi fi jot a jaar yépp lu ëllëg bëtu nit ñi la ñuy def mais luy ragle jafe-jafe nit ñi duñ ko def mais tey Yoff mairie bi. jàpp nañu ne salfaañe ne alalu yoof salfaañe ne suufi yoof ba noppi it mm, euh, nappkat yi fa nekk muy mool yi ñu ngi dund jafe-jafe yu metti te maire bi tegul benn jéego jëmale ko ci ñoom parce que tey képp ku dem ci waax yi xam ne gaal yu mag yi ñu ngi napp napp boo xam ne dootul bàyyil dara la pêche traditionnelle maanaam napp bi fi suñuy maam bàyyi donc tey ñooñu mooli yoo fi ñu ngi dund jafe-jafe yu metti yu tar seen ngor nag ak seen dignité may leen ñu yooxu may leen ñu jël ay gaal di dem wax dëgg yàlla mais yoof moom la fa nekk ci jafe-jafe dëgër na lool mais boo fa ñëwee nag di nga gis jardin publique nit ñi bu ñuy feexloo mairie bee ko fa def di nga gis daanaka ay fowukaay yoo xamante ne mairie bee ko fa def waaye askan wi soxlawuñu loolu ndax balaa ngay feexlu di football di fo da ngay soxla fay courant fay ndox joxe dépense ba noppi yóbbu say doom ñu jàng. boo feebaree fajo boo feebaree faju voilà d'accord jërëjëf euh, Seydina Issa Laye ñoo ngi lay sant di la gërëm la ngay tàggoo. waaw di sant rek. ak sëñ Abdou Khadre di la sant ci dalal bi. di wax ndawi Sénégal ñu jël seen bopp xam ne réew mi fu mu jëm bu ñu seetaanee du jur jàmm xam ni réew mi fu mu jëm ci jamono ji ak président Macky Sall ñi mu àndal du suñu njariñ ñu ndaw yi donc ndaw bu nekk tey sa kilifa bopp nga war nga mën a am sañ-sañu jukk wax déet te loolu lu war la ci jamono ci président Macky Sall bu dee lépp lu mu def rek ñu ne ah garaawul fasu maama lay ñuru moom lay doon ji te fasu maama moom musiba rek lay jur donc may woo ndaw ñi ci fulla ak fayda ci ñu jug taxaw booloo nekk benn pour mën a teg réew mi si yoonu jub parce que sonn nañu Sénégal am indépendance lu ëpp juróom fukki at te mënaguñu tegu si yoonu suqali ko loolu daal laa moon ci kàddu euh, di leen sant di leen gërëm vraiment di ñaan seen rajo bi euh, yàlla yëkkati ko ba ngeen yàgg déglu askan wi bokk ci ñi nga xamante ne askan wi bàyyi nañ leen xel pour réew mi ak njiitu réew mi di ko dégg pour mën a teguwaat si njub ak yoon. jërë jërëjëf euh, Seydina Issa Laye Samb moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM 97.5 ñu si ànd ak yéen euh, samedi bu jot bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu euh, moom nag moo jiite ndaw ñi bokk ci taxawu Sénégal ci département bu Dakar muy milite nag fi nga xam ne moom mooy ci commune bu Yoff Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci micro bi moom du jaawo Diallo moo nekkoon ci wàllu technique bi mbokk ñu leen di leen di gërëm di leen di jox dig daje samedi di ñëw incha allah ci jataay